ayca arbitre bi sifflé na ñoom ñaar ci biir eh, géew jël na ko takk na ko waaye takkante na ñu bañ ñoom ñaar करना चल के चौक कहा ले गए चाह तुम्हारी आई जा चल की अच्छा तुम्हारी चल की अच्छा तुम्हारी छिपीर की होगी बताए नम यार यार खलाई चल की अच्छा तुम्हारी चाह तुम्हारी अच्छा चल की जापन को digal kii ak chatu mari warale nako ko mu dadi ba ñaari xalé yi ña ngay bëre lan moy xew tak nako da koy daan wala lan calki ak chatu mari calki ak chatu mari lan mo xew ñom ñaar trois appuis la trois appuis deux mu ngi door mu ngi door ñom ñaar daan nako daan na ko calki daan na mari calki daan किताब में चार yéen ñëpp maa ngi ci jàmm maa bu baax ak ñëwul ñu ci combat waxoon naa ne ko say si signature bi la yem bu ñu tëjee géew bi géew bi maa ko moom naa la duma naa la daan dama ko duma dama koo daan nee naa ko maay bëre maay xeex maay daan. yaa def lépp maa def nee naa fas bi laajul xiir. billaahi da naan fas bi laajul xiir ndax turu xiir bi lay bañ a dégg bu ko déggee multiple lay def dama ko daj korosé mu daw génn géew bi ah. waaw nee naa na naa mooy si ginnaaw bi mu dëgër moo tax ma jàppat ko mooy si ginnaaw bi mu dëgër. ah na ñëw ñu bëre cigili na ñëw ñu bëre. cigili na ñu bëre. Ah. ci gën a caacoo ñu bëre wala booy plateau ku ñëw ñu bëre ay adversaire lañ ay naataw ko la maa gërëm waa Grand Yoff yëpp zone 7B bi yëpp taxawal ni taxawal ni waaw di ku sonn si ñun la di gërëm laay bi laay ak saay ay jàmbaar lañ matu dañuy sonn si ñun boo wallaay ñaanalal maa ngi ñaanal bëru graaf yi am combat yëpp yàlla mooy leen ndam di ñaanal waa bari bari daan kiriku jël bu set wicc ah fourière di ñaanal waaw mu bu baax mu ñëw yal na ko yàlla mooy ndam bu set wicc di barke Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndam bi nag maa koy may Tidiane Téer ah,